yéen a ngi sen sen rio mi venka TV. Salam salam gay wahlin leen alhamdulilahi rabil alamin sëñ Ousmane jël na ak jomaay jël matukai matukaay ci étranger 14 juillet gars yi nee dañ koy indi étranger yi dañoo a yëg suñu réew bëgg a ñëw moom wax leen alhamdulilah gars yi nee nañ 14 juillet léegi taxaw nañ dinañ ko joxe ba képp bépp étranger bu nekk ci réew mi ngay am carte de réew mi nga ñibbi sa dëkk looloo fi mën a nekk ngeen jëriñ suñu réew wala ngeen ñibbi seen dëkk mënoo leen ñàkk a jëriñ seen ñàkk a suñu réew di ngeen teddee fii ci suñu réew loolu mënta nekk carrefour yi ñëw na kontaan naa loolu nag waxoon leen ay président yuy jaamu seeni askan la am ñi dañoo ñëw pour fajal ñu suñu soxla di déglu suñu li ñuy metti ak li ñu bëgg ñun nag lii lañ yàgg bëgg am nañu kon alhamdulilah ñu leen di sant di leen gërëm ngeen jàpp di partage film ak képp kuy def genre film yu mel noonu